kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye ci ngeen jëf korite ren gi ca tan cey bëgg a dugg l'observateur nañu ginaar yi la tension am na ci poulailler yi ne woppi grippe aviaire gi ñuy wax fan yi ci réew mi ak beneen xeetu virus bi ñu naan virus Newcastle ñoo tàmbale indi jafe-jafe ci ginaar yi l'observateur boole ko ki ay kàddu yu mu nangoo ci aviculteurs yu nekk ci réew mi di yarkati ginaar ñu koy xamle ne ñàkk nañu lim bu bari ci ay poulet de chair ndawalu ginaar a jural ngi koy leeral ci yéenekaay bi ginnaaw ginaar yi ci l'observateur nañu national ba ca jëm ñaajo fële yéenekaay bi xëy dem ba dañuy yeggee foire ba ñu fay def ngir mën a yombalal askan wi am ndugg ci korite gi mu di lujum yi ak li ñuy àndal li soleil national gis ci la am ca marché international ba ca jëm ñaajo mooy foire aux bonnes affaires affaire Prodac bi ñu waroon a àtte démb ba taxoon ñu woolu waatoon ca yoon Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko Sud Quotidien nee nañu yoon dàq na ko Birame Souleye Diop xëy na sànjaafu Macky Sall ci na procès Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ñi ko tëgg jubluwuñ dara lu dul bëgg a xañ Ousmane Sonko présidentielle 2024 yi te loolee du yi 2024 yi Biram ne coordonnateur wër ndomb yóbbu nañu ko ci kaso bi coordonnateur u nemmeeku yóbbu nañu ko ci kaso bi responsable sécurité bu Ousmane Sonko yóbbu nañu ko kaso secrétaire général bu Pastef ma nga ci loxo yoon responsable communication bu Pastef takkal nañu ko bracelet électronique muy lang ak moom lu mat ñeenti téeméeri militant yu parti Pastef ñoo ngi ci kaso bi président bu parti Pastef Ousmane Sonko ñoo ngi koy menacé Biram bindu ci liste électorale yi di Karim Wade yéen ñu xëye xëye nañu ko l'observateur nañu ca commission ba ñu samp ca Turquie ngir di bindoo fa demoon moom Karim ngir bindu waaye l'observateur gis na su moytuwul li ko fi daloon moo ko nar dalaat muy bindu ba pare ñu ne ko mënoo woote Nafissatou Diallo mi yore communication bi ci biir parti démocratique Sénégal nii ci xët mu njëkk luy quotidien amul dara luy mën a mu doon candidat waa nañu ko mu neex mën ngaa dem bindu ji waaye kàddu gu mujj gi moom procureur ba ko yore mooy def ab liste boo xam ne dana ca def ñi mën a woote ak ñi munta woote bu boobaa demoom gi mu demoon bindu ji ci liste électorale moom Karim Wade yàqi tànk lay doon ndax inscription ba du jàll ñu jàll ci xët mu njëkk Les Échos mi bind na Idrissa Seck borom Bambuli massacré na Amadou Ba ak maître Oumar ci communiqué bu mu def moom jiital parti réew mi di sàkku ay militangam ñu bañ a tontu baa ñuy tontonteeg waa Benno Bokk Yaakaar yi koy ci li mu wax ci candidature mbéeg ci candidature Macky Sall ca communiqué ba liise ko nee nañu ca la waxee Amadou Ba ak Omar Youm wax yu rëy te fort Vox Populi nañu ginnaaw Idrissa Seck ak showam bi gaañ ci dàgg sante ca la ñu toll directoire départemental Benno Bokk Yaakaar bu Kees keroog ba ñuy amal seenum conférence ñaawlu nañu fa ba fa ñaawlu yam kàddu Idrissa Seck yi ak taxawaayam ak doxalinam ci mouvance présidentielle bi honorable député Maymouna Sène moom ak ñi mu àndal li ñu bëgg moo di Idrissa Seck delloo yoon yoon yi tukki ku ko aéroport aéroport international Blaise Diagne njiitam di Abdoulaye Dièye moom la soleil national xëy dalal page ba 13 bu yéenekaay bi directeur général bu AIBD moo fa nekk ci waxtaan wi mu séex ak gaay ma nga fay xamle ne condition yëpp daje nañu ngir Sénégal doon ab ab aérien nee na fayit ak li ñu naan aéroville aéroport bu Diass dafay doon yu pôle d'opportunité bu am solo ci àdduna bi te loolee yàggatul dina am fii ak diir bu tuuti neen ni tuuti di page boobee nekk ci ci journal bi nee nañu bari na yu feeñ bokk na ci harcèlement yu ñu doon def jëmee woon ko ci ñu ci mel ne Wally Seck Bis Collection Kangi Style Bijou Ngoné Doro Gueye wala soxnaam Clara Gueye libération nañu te nag lu ngeen ci xamul mooy plainte yi ñu leen di plainte ñoom waa page nee na tuuti ci Facebook bi plainte ya mu ngay gën di takkar naase ca kanamu yoon Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm ak yéen di doon teewlu xibaar yi huit heures yi RFM euh, ay yëngu ci njàngale meek waa CUSEMS su authentique yi fas yéene tey ci wàllu moyen secondaire gi amal ay débrayage na ko noonu grève talaata Rajo Ngit la Dambooj la ñu bëgg ñu ne mooy régularisation ñeel juróomi junni ci ñoom ne ay enseignant ak it ñu ba ñenn ci ñoom enseignant jàngalekat yi nga xamante nañ leen jàpp ci manifester yëpp fi woon nappkat yu Kayaar ak Mbooro ñoo mujj gindi ko am seen digg jàmm dellu si ci ndimbalal monsieur le gouverneur bu diwaanu Thiès Alioune Badara Mbengue ak fukk ak ñaari jaraaf yi penc ci Lebu ndaje eh, jubóo gi ñu ngi ko doon mandargaal ca Thiès démb ci teewaay ak njiital monsieur le ministre bi ñu dénk napp mi Papa Sagna Mali ngir Sénégal demoon na Turquie bawoo ca Qatar euh, bu candidat bu parti démocratique sénégalais ndax dafay tekki ni léegi dina mën a doon kuy euh, taxaw samp ndënd ngir am pal fii ci réew mi am na ay borom xam-xam ci wàllu yoon yu ne déedéet demee guni des na lu ci mën di am dégg ko ci revue de presse bi PDS ñoom jàppuñ ne am na lu ko mën a tee doon kan kalsum lii. Tisane authentique dafa wax jàngalekat yi ni altine tey jii fukki fan ak juróom-ñaar bu fukki waxtu jotee ci daara yu lalu ak yu diggu doomu yi nañu dakkal liggéey bi bu talaata fukki fan ak juróom-ñett ak àllarba fukki fan ak juróom-ñeent bu ñu dox ci daara yu lalu yeeg yu diggu doomu yi ndaxte jàpp nañ ni li ñu teg jàngalekat yi tëj leen ci kaso yi te defuñu dara lu ñuy tere loolu jaaduwul kon li ñuy demandé mooy ñu bàyyi jàngalekat yi ne jàpp yépp ñu ñibbiwaat seen kër dellu jàngale parce que seen place nekkul ci kaso bu fekkente ne defuñu lu ko jar beneen bi mënatu la xaar aussi mooy METP yi ñoom tamit comme MEPS yi dañ leen a war a reverser nu mu gën a gaawee ñi nga xam ne tamit ñi ngi wax. nii bu ñu réglé wul seen problème day jur coow mooy ñin tudde ay décisionnaire décisionnaires yi li ñuy dund metti na te gouvernement Sénégal mi ngi waaj génne benn décret boo xam ni euh, bu ko génnee dana indi coow kon nañ toog waxtaan pour que ñu reverser tous les euh, décisionnaires dans le corps des fonctionnaires beneen bi nag mooy ñi nga xam ay chargé de cours lañ ñi ngi xaar ñu réglé leen seen euh, formation ba noppi defal leen mobilité nationale ñu réglé waale ñi nga xam ni ñoom ñooy ñëpp ñi nga xam ni ay jafe-jafe la lu ñu nguur gi loolu aussi ñi ngi wax ne bu ñu bëggee jàmm nañ jublu ci loolu. Dame Mbodj moo jiite CUSEMS authentique euh, nanu bàyyi génne ci kaso bi euh, Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ni jamono yi mu ngi euh, ci wàllu retour de parquet loolu nag ñi koy sàkk mooy ay naatagoom yu impôt et domaine syndicat bi di ñaawlu li nga xamante dañu ko jàppe daal ak njaay doole bu nu sañoon kon ñu daal di ko ba moom Bassirou Diomaye Thiaré daal Bassirou Diomaye Faye ngeen baal ma ci weneen wàll it ñuy sàkku ne. lii di seen liggéey daal ak trop euh, trop yi ci euh, ñu daal di yokk leen ndëgër lay ñoom impôt et domaine dinañ ko gën a yaatal seen càkkutéef yooyee ci assemblée générale bu ñuy amal tey jii ci ngoon ci talaata ji lay doon liggéeykat yi fonds d'entretien routier autonome FERA diwaanu Kolda ñoom juróom-ñaari weeru payoor lañ warlu ak ñoom octobre 2022 ak léegi ñu ne seenunu ak i gët seeni payoor moo waral ñuy sàkku sax ba ci ndimbaluk njiitu réew mi président Sall ca Kolda Abdoulaye Diallo. liggéeykat yu fera ñoo amaloon toogaanu ñaxtu ci biir mairie bu Kolda ngir ñu fee leen juróom-ñaari weer peyoor gi ñu leen la amel Bassirou Sall di superviseur bu fera mooy rotal ay kaddu jëmale leen ci loolu. donc septembre ba léegi ñu ngi liggéey comme ni ñu daan def parce que contrat bi contrat la à durée déterminée la chaque année dañuy renouveler contrat mais même bu convention bi tardé ñu dañuy continuer ba keroog di convention bi di ñëw ñu jël le train en marche ñu continuer waale ensuite les salaires nous suivent yoon nag dafa ëpp parce que depuis octobre ba nëga ni kenn gisul convention kenn gisul contrat kenn gisul salaire te liggéey baa ngi continuer amal nañu ay jéego yu bëri ngir jot ci li ñu moom waaye dara antuwul la ma rabaatru ci autorité yi moom laa def gis naa les adjoints au maire expliqué naa leen gis naa préfet mu ne ma bindeel papier boo xamante ne mën naa ci sukkandiku pour def benn rapport def naa papier boobu bind naa ko jox ko préfet et je pense que même il a réagi. waa société civile ñoo leen di jàppale tey ñaax njiitu réew mi ndax mu addu si Abdoulaye Cissé kenn la ci ñoom. donc moo tax ñun lu ñuy ñaan mooy arbitrage chef de l'État le président de la République parce que moom mooy interlocuteur u population yu Sénégal na def lépp vraiment pour décanter situation wu travailleurs yi. ki xool joru mbalit bu yile kat di génne bés bu ne ci dëkkuwaay yi waa FERA mérité nañu lu ëpp lii RFM Kolda. Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye ñu del si Ndakaaru waxtaanee xew bi am tey quartier jal Diop ci kanam tuuti muy tàggatoo bu njiit la woon bu armée bu Sénégal général chef Wade war a tàggatoo ak l'armée gi xew bi 9h lay doon ci njiital monsieur le ministre bi ñu dénk l'armée gi Sidiki Kaba ñu leeral ni moom général chef Wade ki ko wuutu léegi ci bopp armée Sénégal général Mbaye Cissé la woon nekkoon ba fii chef d'état particulier bu président de la République RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. pour man xibaar yu wér te wóor Karim Wade démb ma ngi woon réewum Turquie ngir rek euh, sàkku ak euh, mbindam ci euh, liste wote yi ci Sénégal loolee nag ginnaaw bi mu ko amalee di mbindu mi moom Karim Wade ndax dafay tekki ne dina mën a doon ku mën a am ak pal fii ci réew mi loole expert yenn ci wàllu wote joxe ci seen xalaat demee guni ñu ne Ibrahima Jàmme ci gëstu bi. mu doon Karim Wade wala beneen doomu Sénégal buy dund bitim réew am na sañ-sañ dem def demande d'inscription ci list électorale ci benn commission bu nga xamante ne ubbi nañ ko loolee la doomu Abdoulaye Wade def ci commission bi nga xamante ni moom la ñu ubbi ci réew réewum Turquie bu ñu sukkandikoo ci kii di Babacar Fall nag xam-xamam màcc ci wàllu élection commission boobee nag ñaari option rek la amoon soit mu accepté ko wala boog mu rejeté ko waaye nag daal di ci teg ay firndeel. comme moom dañ ko rey woon ci liste électorale yi léegi commission bi ubbi na dem na ci commission bi pour bindu alors ñaar moo mën a am soit dafay ñëw bi mu ñëwee ci commission bi indi carte d'identité biométrique CEDEAO commission bi mën nañ ko rejeté mais bu fekkee dañ ko rejeté dañ ne ko duñ la bind bu boobaa il faut que ñu motiver ko mu fu ñu ko teg jox ko ak kayit boo xam ne dafay wane lii moo tax duñ la bind bu fekkee ne beneen cas bi mooy mu ñëw commission bi jël inscription et le plus souvent noonu lay demee. moom Karim Wade nag demande d'inscription la doon def ngir mu mën a inscrire ci commune am di Point E wante bu ñu sukkandikoo ci kii di Ndiaga la dëgg la rejeté wuñu ko waaye nag des na yeneen étape yu nga xamante ne foofu tamit war nañ càmbar kayitam yi. parce ay information yooyu moom xam yoo xam ne du ko am de sorte que mënul lu dul nangu sa inscription maintenant am na beneen niveau boo xam ne moom la ñuy wooyee euh, niveau traitement boo xam ne bu ñu yóbboo données yi nga xam ne jóge na si commission administrative ba dem niveau central waa daaf bu ñu càmbaree gis ni kat am na koo xam ne bind nañ ko te waru woon a bindu su boobaa moom dafay jël aussi dogal motiver ko. lu jëm nag ci wàllu inscription ci liste électorale yi mu mel ni kon processus bu gudd la ndax bu ñu publier liste yi ba am na lu ñuy duppee période contentieuse foofu itam mën nañ dugal ay recours bi cour suprême jërëjëf euh, Ibrahima Diame ci gëstu boobee gëstu beneen ñeel assemblée nationale ak tolluwaay la jamono yi ñi nga xamante ñoo fare opposition bi dañoo gis ne daanaka assemblée bu ngiro la ñu am ndax ñoom euh, waaye Yewwi Askan Wi ni waxee euh, ñu ne boobaak léegi juróom-ñett fukki question di ay laaj yoo xamante yu nu bind la fanweer yeneen yoo xamante ni yu nu jaare ci kàddu la ak juróom-ñaari laaj yu méngoog jamono tolluwaay réew mi di question d'actualité def nañu ko ay ba sànq France daal di xi deen ca benn tontu waral ñu gisee ni assemblée nationale bu ngiro waaye safaan wala seeni naatango yu benn bokk yaakaar fare nguur gi gis Oumar Mbow ndax assemblée nationale bu Sénégal dafa nekk ci point mort aha kay di dëggal abamaya bile député bi fare ci coalition yeewi askan wi ne pencum ndawi réew bu Sénégal dafa nekk di dox di jànnaxe te li ko waral bëri na. ba ñu defee marathon budgétaire ba léegi mooy mi décembre dafa tëju mu nekk nag lu jël si ñun ndax euh, euh, defe naa ni matul juróom fukki fan. je pense que loolu daf ñu war a arrêté ndax parlement bi parlement débat woon moo tax sénégalais yi voté ni ñu voté tey am nañu lu ëpp téeméeri texte mooy ay question écrite question orale demande commission d'enquête parlementaire proposition de loi lu ëpp téeméeri texte lu mës a am ci sa Sénégal luy coalition Yewwi Askan Wi teg ci table président bi lu bokk la yeneen député yi li ñu teg ci table bi te amul ci tontu ba léegi li ñu jaaxal mooy mara euh, session waaye lu mën ci am balaa ñuy tëj daañu def orientation budgétaire kon football beeg Ligue des champions ca ak euh, ndorteelu quart de finale ngoon. Chelsea mooy dajak Real Madrid bu 19h jotee euh, match aller bi waa Real ñoo gañoon ñaari bal ci dara euh, Kalidou Koulibaly mi amee gaañu gaañu bokkul ci match bi Edouard Mendy moom mu ngi ci groupe bu Chelsea Naples di dalal Milan AC bu Fodé Ballo-Touré ci match aller bi Milan moo gañoon benn bal ci dara ci côté Naples nag doomu Nigéria bi di Victor Osimhen ràññeeku lor ren ci saison bi euh, wuute woon match aller bi ndax gaañu gaañu moom it ñëwaat na ci kon équipe bu Naples incha allah. Chelsea Real Madrid mu ngeen ko déglu ci rajo Futur Média jàppale ni tamit championnat bu Angleterre euh, démb dañ doon euh, àggali 38e euh, journée bi Liverpool. daal di dem euh, fekki sa door ko door yu métti 6 buts à 1 juróom benn bal ci euh, benn Mohamed Salah euh, di doomu Égypte bi daal di dugal ñaari but ci match boobule ca Espagne Celta Vigo moom moo daan dafa daanu ci kanam ko kon benn bal ci dara ca Italie Fiorentina ak Atalanta ku nekk dugal sa morom benn but. jëwriñ ji ñu dénk euh, wàllu tàggat yaram Yankhoba Diattara àdduna ci diggante bi di bu Sadio Mané ak euh, Leroy Sané. moom ministre des sports kon euh, wax ni léegi jàmm ñëwaat na diggante ñaari joueurs yooyu nga xamante ni kon nee nañu ay mag ak rakk lañu moom Yankhoba Diattara ne jot na sax waxtaan ak Sadio Mané wax ko mbir mi nu mu demee ñu déglu ko ci micro Ousseynou Diop ci Ndar. waaw mbiru Sadio Mané ak Leroy Sané. muy incident bi amoon fan yële ci seen biir club ñoom ñaar dañu war a xam ni ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal lañ li tax ma koy wax nag mooy Leroy Sané nga xam ni moom euh, mën naa ni papam moom lañ gën a xam muy Souleymane Sané ci Sénégal mook Sadio Mané kon ñoom ñaar ay doomu nijaay lañu ak doom bàjjan kon ñoom ñaar ay cousin lañu kon ñoom ñaar kenn ñaanul seen diggante am ñagas-ñagas yàlla dogal na Sadio nee na ma sax bi muy ñëw Allemagne bi mu signé ak Bayern ba pare moom la njëkk a woo ko ni day ñëw Allemagne vraiment Sadio expliqué na ma lépp li xew mais ku xam Sadio Mané xam ni du tooñ mais également du koo xam ni dafa agité du du du correction ak discipline am ñëpp dañ ko ràññee ñëpp dañ koy cité en référence li xew nag vraiment expliqué na ma lépp lépp lépp le roi ñëw na ñoom ñaar ñu gisante après incident bi waxtaan ñoom ñu entre frères suul ko vraiment fàtte ko léegi daal c'est derrière nu yàlla def na def na ci ndox bu sedd nañ kon di leen ñaanal ñoom ñaar ñëpp. ba Diatara kon uh, ca Ndar doon uh, jiite ab CRD comité régional de développement ñoon waxtaanee kon lépp lu jëm ci organisation drapeau du chef de l' ñu jàpp ko lu ko dalee kon le 12 ba le 14 mai bii di ñëw moom it mu daal di uh, visiter benn site boo xamante ni jàpp nañ ni fa la ñuy def ab stade bu bees buy wuutu kon stade maître Babacar Sèye nee nañ kon complexe sportif lañ fay def foofu le ca ca ñu waxtaanee euh, football bi euh, ñi am lu yées ñaar fukki at euh, ci wàllu coupe du monde Argentine moo koy organisé. dogal boobu la FIFA jël démb ñoom kon ñooy wuutu Indonésie ndax ñoo ñoom ñoo ko waroon organiser waaye li tax euh, ñu nangu ko ci ñoom ñoom nee nañu équipe Israël bi qualifié moom la ñu nangul kon mu ñëw bokk ci euh, jongante yooyu le euh, ba tax na kon FIFA daal di nangu léegi organisation bi jox ko waa Argentine suñu sukkandikoo kon ci site internet bu FIFA Sénégal moom qualifié na ci compétition boobu di am diggante 20 ba le 11 juin 2023 équipe Sénégal sax jamono yi mu ngi regroupement da li ko dalee démb ba le 20 avril stage njëkk bu ndaw yu Malick daf yi nekkoon champion d'Afrique U20 euh, euh, ñoom kon ñuy waajal baax a coupe du monde boobu lee am ca Argentine Radiassane jërëjëf Youssouf ñu waxtaanee wàllu reportage euh,